merci monsieur le président xam nga rectification dafa am solo mais wax dëgg te am solo parce que man damaa yoru ndox di dégg maa ko posé ci ci ci moomoo kii nga xamante ne mooy Lamine Ba monsieur le ministre ginnaaw bu mu la nuyoo encore nuyu sa naatungoo mi ngi nekk maa ngi nuyu sama collègue député maa ngi sant Sëñ Tuubaa nag ku ma gis xam ne maa ngi sant si Tuubaa maa ngi safar bu baax a baax a baax a baax ndax man si man Sëñ Tuubaa def moo tax heure boo ma gisee à tout moment maa ngi sant sëñ Tuubaa du ma bañ nag ku ma saaga ci weeru safar du ma bañ ku ma xas ci weeru safar parce que sëriñ Tuubaa bi ñuy màggalal wax nañ ko lu nekk jëf nañ ko lu nekk waaye tey ji am na ndax maa ngi wax nag nii ah sama ko député yi xamante nii ginnaaw président la muy jàmm maa ngi la koy wax yaay suñu président groupe am na sama ko député yoo xamante ni yoo ko groupe parlementaire dégg ngeen seen i kàddu loolu c'est une mais c'est pas de respect aussi parce que man amul lenn loo xamante ni dinaa ko def pour jéem a trahir kii que ce soit bokkuma si ñi nga xam ni dañuy téléphoné ay jabaru Ousmane Sonko ngir bëgg dugg ci liste si ñooñu. na ñoo xam ni monsieur le président bokkuma si ñu nga xam ni dañoo jàpp ni yóbbaale moo tax may bokk wala buruuxu wala xar-xar loolu man du bokk si ñoom man sëñ Touba laa gëm. falu naa ñaari mandat assemblée nationale département laa falu bu ko doon élection doon di kat fii. kon jàpp naa ni man maa soxla monsieur le président monsieur le ministre fii dafa am ay seko seko seko mu jigéen seko yooyu nag dañoo doon bi ñu jógee fii si assemblée parce que dafa jot monsieur le ministre monsieur le président assemblée nationale li ma doon wax léegi dama bëgg mu leer askan bi xam le 11 novembre 2022 le président Lamine Diallo dafa bind benn lettre yónnee la ko pour wax la leen règlement bi assemblée bi baaxul nga tontu ko la novembre 2022 ñu ko dinaa xoolaa règlement intérieur femme 2022 ba 2024 lan moo tax li ñuy def ni mënuñu ko woon a def yaay problème parce que bu fekkoon ne bu li Ousmane Sonko premier ministre wax règlement du sens te jàpp naa ni ñun tey bu ñu wootee règlement mu ko war a tuddee règlement intérieur assemblée Ousmane parce que moo tax mu am parce que modification bi mu nekk pour ko def du ñu assemblée loolu moo war a tey bi nii kon ak moo tax monsieur le président le premier juin bi passé dépose naa li xam mooy proposition de loi amul tontu woo ma bindoo président de la République lettre parce que loolu la ko loolu la règlement bi Samb damay ko waxoon te defoo monsieur le président Samb national le 24 le 24 fin bind na dépose naa proposition de loi jëm ci criminalisation ngóor jigéen ba léegi ni tontu wuloo ma est-ce que a a wax waa ngóor jigéen est-ce que ay ngóor jigéen kon ne si ngeen buñ ko wote loolu après yéen a concerné parce que on a des monsieur le président boo jëlee loi bi li ma ci wax mooy loi bii nga xam moom la ñu indi fii du loi bu baax parce que loi bi boo jëlee li nga xamante ni mooy article premier article premier ci règlement intérieur bii ñu yore dafa wax ni article premier bi dafa wax ni li nga xamante ni maanaam mooy le député assemblée nationale soit élu de cinq ans mais bii nga xamante ni moom la indil cinq ans koo tëb loolu tamit yaay xool léegi bu loi bi jàllee léegi député ñaata mandat ñaata at la leen di na le président te bokk ci loi kon bu fekkente ni tey jii Mara Sagna sama collègue député bi am na lu ko naqari mais ñun ñoo gën a am lu naqari tey président assemblée nationale bu ma sañoon tey jii may wax yow tas assemblée bi parce que assemblée méritoowul tey continuer liggéey parce que jàpp naa ni tey jii assemblée mooy bi gën a niir ci assemblée nationale mooy bi gën a assemblée mooy bi gën a Assane Fall boo ñu gën a yéeg ci Assane Fall dañuy saaga dañuy xaste dañuy xuloo amuñu ay argument ñenn ñi nag laay wax ñenn ñi certains ñenn ñi ñenn ñi nga xam ni buñ dee wax nga xam ne ñoom ñii yaruñu leen amuñu xam-xam amuñu maanaam man-man amuñu kàttan amuñu gis-gis waaye ñun amul kenn koo tee fi ñu bëgg àgg ñu àgg fa ñun ay saxaar ci kaw raa la ñuy jàpp suñu toit mooy suñu gaar xasta bi du tee ñu wax tuuma bi du tee ñu wax wax ku ñaaw di ñu wax fa ñu jëm ëllëg xam nañ ko muy gaar bi sëñ Tuubaa taxaw la ñuy kon loi bii nga indi tey Assemblée nationale am na lu ko waroon a jiitu bu ma gisee nii waxtaan am na mais waxtaan am na bi ma déggoo sama proposition loi wax naa président la ñuy caar wax naa président ay Daffé wax naa président Abdou Mbow loi bi dépose naa ko mais pourquoi Cameroun ko mooy nee na awuma li nga xamante ne mooy argument matériel politique d' accord awuma matériel politique mais amuñu ma soutenir kooku nag comme am naa soutenir yàlla subhanahu wa taala ak sëñ Touba loolu moo sam solo mais dañ waxoon ñun ban daje dañu bu ngeen demee ba pare ngay ñëw ràññu ko ban daje bi ñun kenn ràññu ko xamu si dara bu ma propose loi keneen di propose loi ñuy woote woo ki defoon propose loi bàyyi ma man mi def propose loi damaa jàpp loolu injuste la ma ba ma sóor ma La parole est